gannaaw ndigal lu bawoo ci sëriñ Ahmadul Maxtaar di xalifa Daaru Xuddoos fédération bi di wilaya def gëstu bu am solo jëmale ci kër sëriñ Touba Xadimu Rasul gi ci bayti ngir xamale leen ak barab bi dañuy ànd ak sëriñ Modou Baara Abdul Xadim di doom ci sëriñ Abdul Xadim moom sëriñ Baara moom sëriñ Touba Xadimu Rasul. aoudu billahi min acheytaan rajim bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi amin sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala wa sahbihi dawi ridwan wa tamkin sëriñ moustapha diop seexu jëley di imam fii ci jàkkay daaru xudus di jàngalekat noo ngi yëkkati suñuy kàddu ci barab bu tedd bi nu taxaw di benn barab ci barab yi sëriñ bi sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu mu di sëriñ Moustapha Diop njëkk di jàngalekat. ginnaaw bu tegee siyaare bi ci loxol euh, kii kilifa gi kilifa murid yi yëpp mu Cheikh Mouhamadul Mountakha di siyaare Cheikh Mouhamadul Muxtaar muy kilifa kër gi di siyaare mboolem jullit yi ñaan sunu borom defal na tawfiq. sëriñ Moustapha Ndiaye di doom ci sëriñ Modou Ndiaye Assane. Ndiaye moom sëriñ Modou Ndiaye moo doon jëfe ndigal fii ci càkku téefal bokki taalibe yi ñëpp di ko barkeeloo rek ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Moustapha Karim dimbalee nañu ko nu mën ko di barkeeloo di ci xewlu ci bisub Sëñ Tuubaa bi sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguérane gëstukat bu mag ci kër Cheikh Mamadou Moustapha di laayante biir ak bokki julli ñi ci jéema mottalante ci worma yi nga xamante ne nii war nañ koy jox bépp barab boo xamante ne nii danañ ko tudd di tudd sëñ bi ndax barab yooyu ci barab yi suñ borom yi la bokk. bayti di barab bu nu war a wormaal ndax lu bari ci.